un homme très lucide et jeune et de son temps, de son époque. Donc, il a averti, je ne ferai pas un troisième mandat. Et je me rappelle, à l'époque, à l'appel de l'obélisque, était à mes côtés. Quand je disais, avec, avec beige marron, qu'une troisième candidature n'aura pas lieu ici, il menaçait Ablaïwad. Ce n'est pas cet homme-là. qui est digne, qui va revenir sur ça. Non, ce n'est pas possible. Macky Sall, c'est un ingénieur. Il n'aime pas parler. Peut-être c'est pourquoi il ne parle pas beaucoup. Mais il agit. Et il sait que face à la postérité, il doit bien soigner son image. C'est pourquoi je n'ai pas peur, moi, et là, je dis de Benoît Bokoyaka, El Hadji Diouf de, la coalition Benno Bokk Yakaar de la coordonnateur de la sous-coalition LAIR de Benno Bokk Yakaar El Hadji patron du parti des travailleurs et du peuple je n'ai pas peur de dire ici devant vous tous que le président Macky ne se présentera pas pour un troisième mandat il faut que ça soit clair vous avez vu son ancien ministre de la justice lui-même rédacteur de la constitution Quand on lui a posé la question, est-ce que nous sommes devant le dernier mandat du président en principe. En principe. Parce que les gens, souvent, ils sont pas courageux. Pourquoi, pourquoi ne devait-il pas dire oui Mais en principe aussi, dire que oui. Ça dire que le, principe qui est établi, quand un en principe, euh, euh, euh, mais il ne pas le contraire. mais nañ bàyyi ci suñ réew mi njaam ñaam ak ñàkk jom njaam ak ñàkk fulla nit nit rek la mën a nekk kenn du ko lekk nit day am personnalité kenn kenn weddul li président Macky Sall fu ñàngee ba ñàng maay taxaw jël défense am parce que maa ko bëgg sama xarit la ak lu ma ciy dégg lépp nag kenn li ma ko defaan kenn defaan ko Sénégal gi ku we ku ci wet ku mën a joxe le contraire na ñëw taxaw ni yow El Hadj Diouf am na keneen ku la gën a defaan ci waxuma défense dob de mais defaan ko ci ay argument yu wóor ci point yëpp nag laa wax l'homme du 23 juin mel El moom moo taxaw tout le temps di défendre Macky Sall ndax gëm ni Macky Sall moo gën ci Sénégal ñi fi sóob yëpp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 ñëpp a ngi ko teg loo xam du dëgg naan dafa bëgg a dem troisième mandat te man xam naa du dëgg parce que Macky Sall moo ñu jox cap bi bi ñu nekkee ci campagne bi euh, Zal Zal ak euh, Lamane professeur Lamane ak euh, ka dëkk Louga bu ñëwee Zal ni maxana yi maxana yi ci stade campagne bi maxana yi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 comme wat li ma waxoon maa verrouillé ne maa waxoon waxeet Macky Sall dana ñeme na ko waxe wax waxeet dafa jom du ko def kon débat bi c'est ma dama tey débat jeex ngeen dem bu ngeen demee ngeen ne El Hadj Diouf jeexal la débat bi nee na Macky Sall ñëwaat pour un troisième manda parce que tontu woon na ci bu yàgg tontu war ci tontu war ci tontu war ci te nit nit nit jom la nit ngor la ci xale la ëllëg mën na ñëwaat. mais Poutine dafa demoon jox Medvedev ñëwaat Macky Sall li mu def ni mu rafetee ni mu bëree macha allah ni mu amee solo li mu indi ci réew mi li mu yëkkatee réew mi kooku bu demee bu ko neexee mu ñëwaat ñëwaat ak doole ñëpp koy réclamer mu ñëwaat waa kon nag du fi jar kër-kër gi ñi nga xam ne ñoom magay leen joxee na lekk bu leen joxul duñu naan walla bu fi nekkul dañu xiif wala ñu ngi tiit bu mag yi demee lu ñuy dundee bu ñuy solal nañ bàyyi affaire yambar nañ gëm yàlla même Macky bu fi nekkul li doon dundee ba Macky ñëw mën nañ ko di ko dundee mais xalaat ne Macky bu demee rek ñu dee seen ceeb du tooyeeti tax ñu mel ni ñu jëfur buñ jëfuree dañ leen dañ leen xaxar ci ci bedd yi buñ jëfuree ñu xaxar leen il faut que ça soit clair donc maa ngi adressé wu aussi bien aux membres de benn Bokk Yaakaar bi ma bokk ñu ngi ni que aux populations sénégalaises Macky Sall waxam du dañ di wax na ko kon bu leen sonal ñi nañ bàyyi débat bi Macky moo la gën a xam ni comme ni mu ko waxee bu nee damay dem kon marche yi ci dëkk bi dëkk bi day jaxasoo wax na ko sax wax na ko Babacar Fall bu ma ne oui damay dem sama gars yi duñu liggéey bu ma nee non marche yi ñëw parce que moom bëgg dëkk bi tàkk Macky bëgg na réewam bëgg réewam moo tax. mu ne woon Ablaye Wade demal demal amoo droit def troisième mandat ba mu ko dëgëree boobu dem Ablaye Wade <laughs> lan la ci jëlee gàccee la ci jëlee bul dem nga dem tere mu të ko mu ne mam demee ci am loo ci am ndam ndax lépp loo def loo xam ne tegoo ko ci yoon tegoo ko ci ngor doo ci am ndam nit day gore nit day am jom te président Macky Sall xam naa ne am na jom ti gore na bi mu créé bi mu génnee ci démissionné ab euh, PDS dafa créé dekkal ngor dekkal ngor wane dooleem kooku gëwuma ni dina ñëw di ñàkkal boppam fayda ëllëg du ko def kon li ma leen mën a wax mooy ci sama xam-xam ci ni ma xamee Macky Sall bu sama xarit ma bëgg ko lool yéene ko jàmm ëllëg bu mu jógee bu ko neexee mu ñëwaat dem ak succès bu rëy a rëy ndam lu rëy gëw ma ni yi ñu ko wër mën nañ ko dugal ci kàmb googu comme ni mu koy waxoon Ablaye Wade ñii lay wax ne defal troisième mandat dañ leen dugal ci kàmb gi ci trou bi te ñoom ñëkk a kon sa xarit ma wax yow di xam ne yow doo def loolu ñàkkuloo fayda am nga fula am nga fayda ñii la wër di wax xam daa sax nawloo leen jëpp nga leen. ndax dof ci dana wër buur di wax buur di ko xool rek ndeysaan ni ci dof la ba ne ko mu wax waaye nag Sénégal la bëri dof dof yi solo costume karawaat basin wu fekk dof lañu ñu rek ne seen bopp yi kópp kópp ak wut xaalis rek kópp ak wut xaalis donc loolu laa leen bëggoon wax sur ce point y a un deuxième point rapidement Cheikh